booy booy góor jigéen bi bu ko seetaan sa téléphone waaye non non bu seetaan kii sa téléphone. kii bu kii dafa réew. kii kii dafa réew. parce que wax kan. dafa sañ xam am na loo xam ne du sañ wax ñàkk respecté la xam nekk Europe di xool ñoo xam ne yow leer na la boo dajewal ak ñoom ci mbedd bi ñu ñuus la nga jàppale di leen saaga pour lan. non mais mais mais mais des fois mooy loolu quoi. non xam nga il faut ñu respecté sénégalais. ah il faut que eh, ñu rek eh, eh, saaga njëkkee wu ma fi kan waaw non waxuma moo ko fi njëkkee mais il faut que ñu xoola eh xoola tey da ngay xool nit da ngay xool nit tey dèjà li mu wax si njole sasal na ko xam nga tamit non man loolu laa doon waaw moo ko doon seetaan kii dafa réew gis nga kii non mais wax dëgg yàlla moom lii nii moom c'est c'est trop quoi maa ngi di waaj tukki su ma demee Europe foog ma wër ko jàpp ko ñuus ko kii kii naa ko noo ko ah, ah, waaw kii di day duul nga naan su ma ko jàppee naa ko ñuus kii aada ma nekk seexa nga naan ma aada. kii la may ñëw dama bëggul mu fekk ma ma ma gis la fii nii aada di di wax ak yow quoi di la saaga man loolu moom. du ma ko ah, du ma ko ah, bu ma saaga ndey la Instagram bu la saaga ndey nga ko ndey. bu ma ah, mais man bëgguma mu lay saaga quoi. ma saaga. dinaa saaga ndeyam ba ko xam ne lépp dëgg la kii dafa réew kii la ma merloo sax sincèrement fekk am na loo xamante ne rafetul parce que tey moom moom moom am na ñoo xamante ne buñ la nawoon dix dañ lay naw du. zéro parce que ay kilifa diir ay magum jëmm ay responsable ay sëriñ laa moom laa moom c'est trop quoi ah, ay kilifa diir moom c'est trop ñëpp di toog di seetaan télé mag ponkal yëpp di toog di seetaan télé ñoo xam ne say moroom mu bàyyi la ngay tibb di saaga ndey moom na respecté yaayam loolu moom loolu moom am na ñuy saaga yaayam yaayam deful dara mu ngi seen kër toog mais moom moom léegi danaan moom moo am fit waaw damay ubbi sama gémmiñ di saaga gis nañ fi Assane Diouf de mais man man li ma li ma ci gën a jaaxal mooy Euh, le fait que muy muy wax wax yu ñaaw xam nga ci ci deru nit koo xamante ne sénégalais la comme moom. comme moom dëgg-dëgg. non mais ça ça waaw sénégal moom il faut mu xam loolu gis nga ñi muy yàq seen dër gis nga xam nga lu gën a métti xaw ma moor Gueye xaw ma mu ngi jàpp kooku di ko saaka rek. waa jooju musu ko tontu. waaw musu kooku. su koy saaka musu ko tontu. gis nga nit ki boo nangoo lu yàlla dogal doo sonn sa xol lu jeex. mu moom waa jooju musu koo tontu. te saa bu xëyee saaga ko. xam nga kooku tontu ko tey tey moom wax nga dëgg tey mu ñëw jàpp njole taal xam nga booy ku xam njole xam ne Sénégal ku nit ñi respecté la wax dëgg yàlla ku nit ñi faraluma ay njole faraluma keneen mais ku Sénégalais yi respecté la dëgg ngay wax ni xam nga tey lii mun na jaxase sëyu njole jëkkëram mën na ci mer xam nga mun na jàpp keneen jàpp ay ama neex ay mbër yoo ñoo xamante ne bu ñu ko jàppoon dañuy lem ndayam dañuy lem ndayam nga naan lem <laughs> waaw kii dafa réew waaw <laughs> xam nga kii dafa merloo ñoom dañ koy lem ah. jël ko dugal ko seen poos barki aw kii billaahi soo doon mbër yooyu noonu nekk Europe damay jël bool fekk ko fi mu nekk génnee ko fi mu nekk naa ko xoolal dama koy door ba mu dee kii dafa a ni bii waay réew quoi tey moom tey moom bu leet parce que tey nga wax dëgg nag moom tey moom non dëgg nga wax quoi. ah non lii dafa ma metti ay saaga non tey moom ah. tey moom. non non wax dëgg yàlla. man nekk la man nekk naa man nekk naa Allemagne 30 ans. di dund lu ne di gis lu ma metti Sénégal mais mun ma def vidéo saaga xam man almaañee laa man Allemagne laa juddoo. almaañee eh, bu ma fa laa juddoo. maa ngi juddoo capitalu Allemagne. Bayern na dëgg dëgg na du Bayern na mooy capitalu Allemagne. Bayern na chaque mooy jël championnat bi. mooy capital yow loolu lañ la wax dañ ne la Bayern mooy capital. fa laa nekkoon maa ngi woon ci ginnaaw conteneur bu nga bu bële bi. Allemagne nga wax de. Allemagne ci ginnaaw conteneur bi laa dëkkoon biir Bayern Bayern maire Bayern bi seex ni xam naa ko sama gaañ la kan seex ni mooy maire Bayern xam nga foofu daa am maire. ba tey dama la teel a tàgg nag. ah dama la a waaye yow. mooy bi mooy bi na ma trop. xaw ma aadam mbow xaw ma seex mbow xaw ma kii il faut mu respecter sénégalais ah respecté ay sénégalais weesuwul nga toog ay nit di seetaan ah? mais ngay saaga ndey yenn saaga ndey yoo xam ne ñàkk respect la moom na respecté nit ñi ndax am na ay po ay ñoo xam ne ay mag lañ ay kilifa diine dugg Instagram di seetaan non Instagram ah? léegi kay moom ñëpp koy seetaan ñëpp la xam nga tey commencement bi am na lu mu doon def gars dama ko doon apprécier di ko seetaan parce que da doon kaas ngir askan bi doon wax métti métti askan bi mm-hmm. nay wax loolu mais gis benn nit rek def téye sa téléphone def nii sa Instagram toog sa kër sa tent di naan maa fi gën a neex jabar ak su fi gën a neex jabar moom moo wax loolu moom moom jabaram la defal vidéo naan ko waxal maa fi gën a neex jabar di naan maa fi gën a neex moom na xam jabaram rek ñun ay jabaru indol lañ am ñoo ko sama jabar xam nga indol la Maria Bassan doomu Aminta Bassan bi du ki nekk fii de. Ah? non Inde ki nekk Inde. Ah, Sénégal kay aw fi jabar. man du ma jabaru sénégalais déedéet man Inde rek. yow jabaru Inde nga am. Inde sama sama jabar bi Inde doomu taawu Aminata Bassan. Aminata Bassan bi doon def. moom may doomam xam sama xarit la. moom may Maria Bassan doomam bi Maria Bassan la tudd mooy taaw. moo ma gis rek man neex ko mu may ma ko. mu may ma ko mu may ma ko waaw day joué film am na benn film Inde bu ma bind. waaw tuddee ko Minti Xeere Xee. film boobu day wax ci diggante mbëggeel. couple Xeere Xee. film boobu day wax ci mbëggeel diggante amitié. amitié quoi ak copain film bi si loolu lay bind naa ko maa ak moom ñoo koy joué. yaay acteur principal bi. man ak moom ñoo koy joué. su boobaa nag gars yi yóbbu ma ma tatoué bi man. bientôt fii ak waaw man maa ngi xool fii ak 3 mois nu may nekkee tubaab xam nga produit boobu am na. pour nga rek. yow produit boobu am fii ak 3 mois bu ma neexee damay nekk tubaab saa te man damay nekk tubaab léegi ndax Sénégal bii fu ma gis moom nii. ku fi changé wul nationalité. di nga sonn waaw nga dëgg na. loolu moom loolu moom dama bëgg changer sama. non loolu moom dëgg la moom. ma changer sama tur tampon laay tudd. kan tampon. tampon wala bi ñaari tur yooyu daal tur yu ma neex la ci turu tubaab bi. tampon yow ñëwee nga tuddee sa bopp tampon. bàyyi ba ma kii may juddaat tudd tampon wala mu tudd bi sa kër ñaari tur yooyu benn laa ci jël tudd ko booy man am na damaa sonn waaw donc des fois man dama dul xam fan laa lay classé yow. a ah, dama dul baax na. c'est que des fois dama lay bëgg maanaam yow des fois da ngay wax dëgg ba mu ne saa waay moom naaj da jëkk jékki génn fu la neex. ah waaw l'essentiel daal mooy man li ma la wax boo ko jàppee baax na boo ko jàppul baax na man xam naa sama bopp te xam naa man maay kat xam nga xam man xam naa sama boobu te xam naa maay kat man dama bëgg lépp lu ma lay wax ñun intérêt Sénégal moo ñu ñor du intérêt nit ñun tooguñu fi di défendre nit. wala di waxal bi mais ku fi def lu baax. ñu wax dañ koy wax. <laughs> ku fi def lu bon. ku fi def lu bon dañ koy wax. waaw loolu moom d' accord naa. Ah? loolu moom maa ngi loolu d' accord maa ngi partant. ok waaw parce que xaw la dëggantaan nag bu ñu waxeentee dëgg rek quoi non suñu Sénégal bu ñu ko seetaanee fi mu jëm du ñu du ñu neex. toog leen barki non du ñu neex ñun ñëpp gis nga xoola maa ngi déglu fii ak deux mille trente Sénégal dañ koy dagg ku nekk jël loo am. kan. Sénégal fi ak 2030 dañ koy dagg séddoo ko ku ne jël loo am. pàccoo pàccoo. lool loolu laa dégg. ñu amul këyit. ñu amul këyit këyitu lan. ñi nga xam ne amuñu këyit bulletin de naissance. bulletin de naissance. waaw ñooñu ñu jël leen xool leen fa leen ñii ay Djibouti. ñii ay Djibouti ay Tanzanie ay Botswana nga xam ne dëkk yooyu da ngay dem rek ñu may la këyit. ngay def man man man dinaa am 19 fois parce que 19 na quarante laa am. man 19 fois laay am. loolu dama koy teel si signé j'ai dix-neuf nationalité Sénégal dama am nationalité Dakar nationalité am sama nationalité dëkk nationalité Tamba nationalité Tamba am nationalité Ndar am nationalité Casamance am nationalité Louga nationalité Thiès nationalité Kaffrine Koungheul Koupentoum Sinthiou Malem Malem Niani Dougar maanaam onaar yooyu yëpp am naa dëkk bu nekk sa carte xam nga bokkul. léegi yow loolu da nga leen génne Sénégal. wax ñun fii ak deux ans Tamba dañuy génne Sénégal maa ngi xool ni nu may jéemee nekk pré nu may demee nekk président may nekk président. ba ma président fa Tamba. waaw sama dëkk fa laa dëkk. may nekk président Tambacounda. non man problème laa am mooy yow. xam mooy jël dëkkam jox la ko oh boy é. boy su ma nekkoon président nga gis président bu con. waaw loolu moom président bu con xam nga lu may njëkk def. Sénégal tata yi. waaw ah, tata bu amul taxaw. ñëppay toog ku amul palaat. loolu d'accord nga wàcc. imagine sama campagne. super. amul taxaw ku amul place nga wàcc. maa ngi ci biir partage waaw. fële Fuuta bu ne. waaw. Pël Fuuta bu ne. Pël Fuuta waaw. buñ la luwee ci kër. boo nee ñaar nga. ñaar nga. foofu ñaar ngay yem. ñaar ngay yem. malien bu ne buñ la luwee ci kër. nga ne ñaar nga. ñaar ngay yem. d'accord naa. képp ku fi nekk di liggéey dañuy liggéey ci ordre ma tabax ay usine ay usine saabu usine omo usine alcool usine asib sax naa ko fi defar pour en bu ñu tubaab yi tooñee nga xam ne dañuy taxaw xoola il de Gorée commencé leen arrosé trrr xam nga yooyu yóbbu. boo ko defee bu boobaa Sénégal dootul am chômage. Sénégal y' a beaucoup de chômage. Ah? daa bëri chômage meen. te loolu meen du ko nangu meen. baax na de baax moom. naa ko def lu su dof dof la damay toj. bul toj ah? ma tabax damay kuule. ba pare déréfé. bàyyi naa man man rek mooy sama problème mooy changement moom doo ko def mu changé si boppam ba dul def. booy ful laa lay wax nii. bi lay wax ful la nga wax man man lenn moo ma mooy man da maa yëkkati nii ba ma commencé yaakaar maa ci donkaasi bi def nii. Ah, kon damaa ñëw niveau un ma yaakaar ne da gën a yéeg. Oh, la woon. Eh, ñëw. <laughs> lay rek. ah waaw ah, booy maa lay bàyyi fi booy sama biir bi maa ngi ci biir waaye bi booy xaw ma lan la démb damaa dem benn kër booy ñu togg waat de pen luy waat de pen waa waat de pen booy moom booy lañ ma jox booy loolu coob la damay dégg paa bi naa da nga doon tàggu da nga doon tàggu waaw ngaa ñibbi ah mën ngaa ñibbi ah booy da ngaa fàtte fii maa maa dëkk di waaw garaawul nga dem léegi ah da ma fekkoon ma toog di cons ba ma continuer seetaan sama kii booy suñu wifi bi booy changé naa code bi indi ma jox la ko non baax na naa kii bi laa lay jox code la lam la code Ah, baax na jaratul ngay way. jarawul baax na baax ok maa ngi signalé waay booy dama xaw a sonn je un peu.